asalaamaaleykum wa rahmatulah ay mbokk waa Sénégal c'est pour vous montrer que pour nga mën a bokk ci One Africa Talk muy messenger wu One Africa il faut nga dem nga bokk ci One Africa njëkk mooy nga download app bi euh, mooy télécharge application bi soo ko téléchargé nga nga nga dem nga sign up xam naa bientôt incha allah dañ ko def en français suñ ko defee en français di nga mën a di ngeen mën a ko jot ci français wala sign up sign up mooy nga registré soo registré ba mu jël sa information yëpp nag léegi tamit mën nga delluwaat nga nga dem ci sa play store nga download beneen kii beneen app buy tudd One Africa Talk One Africa Talk boo xoolee ñoom ñaari app yëpp ñoo ñoo yem fii dangay One Africa Talk moom nga def su fekkee ne am nga One Africa déjà da ngay dem nga dans download app bi nii soo ko dans soo ko téléchargé moom léegi soo ko xasee am rek soo ñëwee fekk na yow nga nga nga bokkoon déjà ci nga bokkoon déjà ci nga bokkoon ci One Africa déjà léegi da ngay jël sa email boobu ak sa euh, mot de passe bi nga def ko fii pour mën a ñëw bokk ci kii bi soo ci bokkee nag léegi sa xarit yi nga xam ne moom nga am ci. Euh, One Africa moom ngay gis nii ñoom ñooy moo lay feeñ fi nga man leen woo wala dara soo buggee créer group nga bës ci deuxième kii bi catégorie bi nga créer groupe soo buggee créer groupe dina la woon créer chat group mooy nga créer sa group bu ko defee sa communication ak sa groupe man nga clic benn clic euh, woo groupe bi yëpp nga woo leen ci benn jamono wala benn temps di nga gis ne mën naa call group bi nii su ma defee lii rek daf leen di yónnee ñoom benn euh, benn link bu ko defee ñoom ñëpp gis ma ma mën a wax ak ñoom genre bu mel noonu léegi noonu lay demee daal da ngay gis ne benn kii la leen yónnee bu ko defee groupe bi yëpp daanuñ ma mën a wuyu foofu léegi soo buggee sign out tam nga sign out nga nga génn mais soo bëggee invité sa nit yi nga xam ne ñoo nekk sa téléphone aussi da ngay def fi invite euh, kii bu ko defee tam nga tàppe seen tur wala seen sant bu ko defee da nga leen mën a yónnee kii bi application bi ñoom tam ñu mën ko jël xam naa incha allah bu ñu yàlla dimbalee ah, ci ñaari ay bis di ngeen gis fii nii incha allah ci ñaari ay bis di ngeen di ngeen gis nii dinaa def fii nii ci suufam dinaa fa def ne ku fi ñëw tamit il faut nga bokk ci One Africa pour mën a pour mën a dugg fii soo soo mën nga fi dugg comme en tant que invité seulement mais du la jariñ fii mën nga def sa tour nga def sa tur wala nga def sa sant nga ñëw dugg mais kan nga xam fii euh, soo amu soo amee soo amee ñoo fi mën a woo tamit xam nga xëy na nga man leen woo mais li gënoon daal mooy nga nga nga bokk njëkk ba pare nga soog ko mën a utiliser je pense que loolu moo gën comme ça tamit nga nga xam noo koy doxale xam naa dinañ def beneen ab bu gën a am solo beneen waxtaan comme sa ngeen gën ci mën a gis seen bopp jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu